sëñ bi Lamine Touré ñu ngi lay nuyu. ñu ngi di la dalal jàmm ci réew mi FM fàttali kon ah, taskatu xibaar nga waaye tamit yëngatu ci wàllu formation ndax tàggat nga ay taskatu xibaar yu bëri rawatina fii ci Sénégal. Ah, ñuy mm. waajal nag bëccëg bi nga xamante ne moom la àdduna wërngal këpp jagleel rajo ah, ren ji nag moo da nekk fukkeel bi yoon ñu koy màggal bi le bëccëg ñuy wax ci li nga xamante ne moom mooy nouveau monde muy àdduna bu bees daal ci gàttal ak it li nga xamante ne moom mooy xarala yees yi ak rajo nu mu ci mën a dundee yow ni mën nga ko am ci temu ren ji maa ngi lay euh, jaajëfal si sa mais temu ren ren bi mm-hmm. dafa ñëw si euh, moment boo xam ne bi euh, lépp lépp dafay évoluer ba pare nekk si moment boo xam ne bi dafa am problème bu àddina bi di dund problème bu àdduna bi di mooy problème bu mbas bi feebar bi nga xam ne bàyyiwul benn réew mm-hmm. maanaam muy coronavirus bi mm-hmm. alors Covid bi ba dafa yegg si mu nekk monde boo xam ne situation spéciale mu nekk monde boo xam ne bi euh, technologie bi dafa évoluer Euh, technologie bi dafa évoluer rajo bi évoluer et tout ça léegi thème boobu si sama yaakaar dafa bëgg a wone naka la rajo mën a jouer benn rôle ci monde boo xam ne bii am na problème bu ko préoccupé ba pare am na également situation boo xam ne rajo yi mën nañu euh, parce que dafa am technologie bu bu avancé rajo mën na dugg fu nekk mën fu nekk. Mm-hmm. alors boo jàppee loolu da nga naan euh, rajo bi war na mën a jouer benn rôle important ci sensibilisation ak ci formation surtout par rapport à une situation bi ñuy loolu dëgg la parce que rajo moom rek moo mën a pénétrer fu nekk mu bi mu nekk ci biir yeneen dëkk dëkk contre yeneen fu mu soree ak si làkku nit ñi ah, làkk bu nekk mën na ko làkk ko communauté bu nekk mën na ko mën na ko mën na ko toucher et donc loolu la laa comprendre euh, thème bu ren jii parce que rajo nag euh, am naa yaakaar ne Euh, ak lu munti doon ci euh, société bi war nañu wax parce que rajo dafa am impact si si conférence nit ñi ci parce que dañ koy déglu tout le te dafa important communication am dafa am doole. ci biir biir société bi voilà noonu laal la ko mën a yow nag en tan que doyen ndax mën nga dikkaat ak ñun eh, ci yan anam la rajo yi njëkk sampo fii ci Sénégal ak évolution bu fi ñu toll nii. waaw euh, rajo rajo yi bon rajo xam nga buñ ko créé léegi yàgg na am ne cent un an mille neuf cent vingt daal la ñuy wax ne rajo commencé na foofu première émission mais Sénégal dafa nekkoon benn dëkk boo xam ne ñëpp xam nañ ne colonisation colonisateur tubaab bi moo fi nekkoon alors ci Afrique occidentale ah français bi fi nekkee dañu créé ci Ndakaaru rajo boo xam ne dafay rajo buy laal Mauritanie di laal euh, Afrique de l'Ouest yëpp daal Mali ak yoon alors nag rajo Mali dafa amoon studio boulevard de la République mais euh, ay studio mun naa si cité ñett studio rajo Sénégal studio rajo Mali ak studio rajo Mauritanie hmm. ñu daan émettre ay émissions yoo xam ne dañu daan diffuser ci ci dëkk yooyu alors nag bu muy évoluer noonu yoon bi nekk rek petit à petit euh, Sénégal yi ñëw ñëw alors nag ñu dem ba ba ñu amee indépendance ñu créé rajo Sénégal sax sax wax fàtte naa la wax si tubaab te amoon na rajo Mali parce que ba ñu créé avant rajo Mali amoon na rajo Sénégal mais comme fédération du Mali bi fédération du Mali bi dafa euh, yàggul. Hmm. ba mu taxee nag rajo Sénégal nekk rajo Sénégal carrément. bien que boo doon demee feneen normalement war fa am ay studio yoo xam ne mu ngeen leen wan ne fii la rajo maa ngi nekkoon fii la rajo kii nekkoon alors loolu la 1960 si la dañu créé rajo alors rajo nag aussi. Hmm. si rajo Sénégal ñu am ay stations régionales par exemple ay lu euh, sept stations régionales hmm. am ay rajo régionales après mu am. Euh, Euh, à partir de 1994 mu am Sud FM mu nekk la première rajo deux ans après Walf ak yooyu après léegi nag mu am première rajo yi am nii après rajo communautaire waaw moom bari ay rajo communautaire léegi am ay rajo privé am ay rajo publique daal rajo publique rajo communautaire ak ay loolu mooy évolution rajo. évolution boobu yëpp gannaaw loolu ndax yaakaar nga ba tey ba fi ñu tollaatum deux mille vingt et un bi rajo maa ngi fa mu nekkoon ba léegi. maanaam si rôlam ma ngi mu ngi place am ba tey. si rôlam mu ngi place parce que rajo dafa nekk loo xam ne lii dafay dafay informer d'abord daf lay wax li xew mais daf lay euh, dafay éduquer Mm-hmm. xam nga amoon sa am na ay émission yoo xam ne dafay day day éduquer partout xam nga amoon na émission bi bi doon wax par exemple ay <coughs> pardon diisoo mm-hmm. diisoo dafa amoon ñu bu doon waxal mooy euh, cultivateurs yi paysans yi pay euh, nappkat yi baykat yi yooyu mu am rajo éducative euh, rajo éducative scolaire pour étude pour élèves rajo mu ngi nekk ba tey parce que Euh, ba tey mu ngi wax nit ñi ci ay ñi leen toxal xam nga normalement rajo euh, mënul mënul euh, disparaître parce que même ba mille neuf cent cinquante bu télévision ñëwee bañ ne rajo day dee hmm. rajo dafa dafa gën a jege auditeurs yi parce que dañu créer transistor nga xam ne da nga koy gàddu def sa poche dem stade wala nga dem fu la neex déglu match wala nga dem déglu leneen hmm. xam nga évolution boobu tam dem ba nga xam ne son bi amoon ci rajo bu njëkk ba ba daan jàpp rajo onde courte muy xuru xur xuru hmm. parce que dafay jaar ci ay euh, li ñu koy waxee nekk nekk FM hmm. FM son bi gën a bon jékki jaar si satellite ah, te tey mu nekk numérique am ne foo boo jàppee son rajo dafay nekk bu leer yow boo amul sa son rajo bu baaxul sax dañ lay kenn du la déglu hmm. techniquement rajo day évoluer ak son temps que tey yow ñëpp ko bu neex déglu rajo si sa si sa téléphone mm-hmm. mm-hmm. donc am na évolution. bi tam normalement war na évolution. mu am kon euh, li nga xamante ne rajo dëkku na ko ba génn ci ci kanamu tele ak sax ci journaux papier yi waaye tey jii mm-hmm. àdduna bi am fu mu toll ci wàllu kon xarala yu yees yi loolu tamit euh, ban résistance la ci rajo mën a am ndax bu fekkee tamit day adapté ana euh, ci yan condition lay doon. rajo buy adapté xam nga rajo lan moo ko caractérisé mooy rapidité am ak accessibilité am c'est-à-dire dafa gaaw mais dafa a jàpp. Mm-hmm. te te nit ki yow da ngay wax rek nekk dégg la tout dafa immédiat. Mm-hmm. léegi ak yi bees am nga bon léegi xarala yi bees mooy lan mooy euh, internet. Mm-hmm. mooy euh, rajo yi parce que léegi. rajo yi sax dañuy def rajo ba pare nekk télé ñu leen di gis ci image. Hmm. xam mooy mooy rajo bu ñuy gis. Hmm. loolu nag bon évolution la mais man vraiment bu nekkee mën ngeen wax ne je suis peut-être vieux jeu mais rajo c'est-à-dire kumpa euh, bi nekkoon ci ginnaaw. Hmm. bi nekkoon ci ginnaaw dafa commencé dafa commencé dem parce que euh, koo doon wax ci rajo te gisuñu la. xamuñu rek nga ñuy si sa baat ak ni ngay waxee ak euh, auditeurs yi. Mm-hmm. dafa doon def benn image si bopp nit ñi image mentale. Mm-hmm. léegi buñ la wonee rek mit boobu day daanu. Mm-hmm. day tombé bon kooku ban je pense que loolu euh, méfé na boobu daal àndoo ci. si ànduma ci ba bi ma nekk si ànd day am. <laughs> mais c'est-à-dire. c'est-à-dire doo yaakaar ne. di di di compo bi nekkoon ci ginnaaw rajo. par exemple yow Gomis. Mhm. nga wax ci bi après nga génn kenn président xam nga xam nga loolu ki doon en kii mhm. donc en kii la boobu. te entretien dafa doon entretenir benn espèce euh, mythe entre auditeur bi ak yow. Mhm. boo xam ne bii donc dafa lay gis nen yow tam ngay gis ngay gis nen. loolu la la évolution bi brisé. mais en tant que rôle rôle lu rajo bi. dara dara dara dañu si. rôle parce que rôle li mu daan joué mu ngi te rôle bi mu mën a joué kenn mënu ko joué parce que rajo bi ngay jël tam bi euh, parce que bu ñëpp fonk la ñuy wax <laughs> nga dem fu nga dem mbàq wala nga dem région mm-hmm. fu sore fu sore si nga euh, nga wax ñu dégg wala ñooñu nga wax ak ak ñooñu seen langue ñu dégg et cetera. Mm-hmm. xam nga. Mm-hmm. loolu mooy ci rajo mm-hmm. ñu ñëw nag ci euh, programme bi maanaam li rajo yi di joxe di wasaare léegi Sénégal ñu gis ni kon lu ñuy joxe amul euh, benn euh, richesse bi ndax yow loolu nga gis. man li ma gis mooy rajo yi boo amee par exemple boo jëlee rek les chaînes yi am Dakar ci FM yi. nga jël benn waxtu nga jël neuf heures ba midi ñaap même chose la ñu ñii dañuy euh, maanaam euh, musique nga jël vendredi guddi euh, jeudi guddi àjjuma nga jël rajo ñaap moom lañ mhm. nga jël matinal bi si suba ñaap moom la ñuy même rubrique yi c'est-à-dire amatul créativité boo xam ne bii mhm. wala spécificité a sax mu am ay rajo thématique nga xam ne kii dafay nekk rajo lii rajo mhm. mais c'est-à-dire buñ ko wax en même temps bu fekkee dañ koy wax en même temps ça veut dire que ngay mag ngay ndaw ngay góor ngay jigéen ngay ñëpp on t'oblige a écouter un même non seulement amatul amatul une certaine créativité il a des choses à dire même culturellement par exemple rajo yi yenn saa yi nga déglu folklore man dama leen déglu folklore su benn bopp mais nga nga def jàpp beneen fi comme li ma doon wax sax pourquoi du ñu créer euh, rajo bu ñuy def musique Sénégal waaw d'accord ak bon cahier de charge si si émission yi. Mhm. musique musique sénégalaise musique euh, euh, salsa musique rap musique reggae musique et cetera jël benn par exemple africaine yi def xam musique euh, Zimbabwe xam musique Algérie xam musique Maroc xam musique beneen dëkk et cetera wala folklore yi ñu daan teg dëkk. Mhm. ah. li nga xam ne si inspiré musiciens yi pour def pourquoi duñ ko teg pourquoi duñ teg musique fulaadu di teg wala di kooku évidemment am nañu ay rajo koy def. Mhm. mais dañ ko def. Mhm. c'est-à-dire donc loolu mooy problème bi daal c' est à dire dafa am uniformisation xam nga. uniformisation mooy ñëpp di def la même chose à la loolu ça veut dire que manque hmm. noo gisee léegi euh, ndaw ñi ak anam yiy doxalee boo ko méngale ak yéen seen jamono ba ngeen di def rajo dëgg tollu seen diggu ndënd ak léegi lan moo leen wutale. li ñu wutale mooy par exemple dama lay jël animation. Hmm. ñu wutale mooy wax ku ko tëgg wax nu mu tudd. wax bii ba gën a bàyyi la nga déglu musique. Hmm. mais léegi da da ngay teg sa musique yow centre bi ci sa studio. taka taka taka di way ba ba ba tak jamono ilaa yow nga di ko bëggoon déglu musique boobu. tànn de ngir yàlla bàyyi ma déglu bi musique xam nga. ci hmm. xelam alors dafa lu ñuy waxee parce que rajo da ngay wax ak ñëpp rajo am maanaa da ngay waxee. Hmm. dafa war tegginu war a leer. war a yaru xam nga. Hmm. ba pare war a waaye yow ngay nekk ci rajo yow gomis nga nekk studio ak keneen ak keneen ak keneen ngeen nekk yéen ñetti di wax ki naan sa robe bi rafet na ki naan la ni nga tañewoo ki naan la xam nga yéen waxatu leen ak auditeur bi. Hmm. auditeur bi mooy vedette bi mais médium bi mooy vedette bi yaa ngi nekk seen biir. yéen nekk entre parenthèse auditeurs yi auditeurs yi yow nekkatuñu leen pour auditeurs yi seen bopp ngeen fa nekkal. yaa ça également y a le fait que il faut que li ñuy wax te mu am maanaam il faut mu mu am njariñ il faut mu jëriñ ki ñu koy waxal xam nga. Hmm. il faut que mu utile ensuite euh, on a dañu am tendance trop trop trop def ci euh, sensationnel maanaam ma sensationnel mooy maanaam wax loo xam ne bi euh, dafay forcément te bëgg a attirer attention nit ki. Hmm. Euh, wax ko loo xam ne yenn saa yi sax du am signification bu bu bu mag du ko du ko jariñ dara. Hmm. mais par curiosité rek parce que umpa bi bi rek tax mu lay déglu. Hmm. te loolu tam du citoyen c'est vrai mën na am mais loolu c'est pas forme citoyen par hmm. euh, euh, daal moom laa gis ñiy eh, def rajo fi mu nekk nii. ba hmm. may jox xoolaat booy wax si rajo da ngay xam ne ñëpp ngay waxal da ngay waxal ndaw da ngay waxal mag da ngay wax ak kilifa da ngay wax ak da ngay wax chef da ngay wax ak papa da ngay wax ak eh, utu morom maam et cetera loolu yëpp dañ ko war a prendre en compte. Hmm. te loolu wax na leer xam nga nga vérifier ba pare nga wax ko. est-ce que du tàggatu bi maanaam formation bi moo des. ci wàllu woowu. waaw ñiy tàggat bari nañu ñiy tàggat bari nañu mën nga tàggat si école mën nga tàggat si rajo bi même ci formation ah loolu sax sànq dama ko fàtte wax ci tubaab hmm. parce que mën nga tàggat ci école école bi fi tàggat ci journaliste yi ah hmm. euh, bu gën a mag boo nekk université moo CESTI hmm. man jàngale naa fa ba depuis quatre vingt dix ba ren laa bàyyi xam nga léegi ñooñu fay tàggat dafay nekk ñoo xam ne dañ leen di dañ leen di tànn c'est-à-dire am concours mille personnes ñu jël si vingt cinq ñooñu ñu ko ñu tàggat ñu tàggat bon ñooñu am na ñoo xam tam dañ leen di tàggat ci école privée yi école privée yi ah, am na ci ñoo xam ne am nañu ay yoo xam ne mën tàggat waaye problème bi foofu mooy dañu massifier dafa bari da ngay ñëw rek joxe sa xaalis fay ñu tàggat la foofu dafa war a am benn segg boo xam ne. balaa ngay bëgg a def métier bu mel ni journaliste da ngay am benn niveau niveau boobu rek ah fi ko teg mooy baccalauréat mais mun nga dem mun nga nekk tam bañ a am baccalauréat ñu formé ci rajo bi mais buñ lay formé ci rajo bi da ngay war a mun a di euh, def ay année ci rajo bi euh, di xool naka la ñuy liggéeyee di naka la ñuy waxee bu fekkee ne bo wolof ngay wax tam nga wax ko normal de tubaab nga wax ko normal euh, nga ñu l'essentiel c'est que presque lay formé toujours parce que bu njëkk ba am na ñoo xam ne dañ doon nekk université wala ñu am baccalauréat ba def rajo te ils étaient bons parce que dañu amoon culture générale bi. waxeen mm-hmm. tubaab euh, olof bu bu leer am teggin bi am lépp dafa ñëwoon école journaliste ba école journaliste ba yàggul trop ay mille neuf soixante euh, et quelque ñu commencé am école journaliste mu ngoog sëñ bi lamin ture may fàttali kon taskatu xibaar nga nekkit formateur euh, tàggat ay génération yu bëri yi nga xamante ne kon ci wàllu journalisme la ñuy yëngu ñu lay gërëm ci euh, kon disponibilité bi surtout merci